bokkanti pàgguteeku maamu xaadimu rasuul ak ñaanam ba ba mu ko ñaanee ba noppi dafa wax ne boromam nangu na waaye nag bu ca bëgg a doon dara wala nga bëgg caa amut cër doo toog fa nga nekk nee ko ñaan nga fekk doo ko wan gannaaw nee ma dab waaye da ngay jug ko ma daje maam Xaadimu Rasuul dafa waxan ci biir liggéey bu ne bii mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko Rasulullah dafa jàkkaarloo ak boromam ne ko bu ma demee ba man ak ñi ma àndal doon ko nu fekk si la yow suñu borom wan gannaaw liggéey na nu may ay sëkk yoo xam ne danañu laxasaayu taxaw temm ci jël liggéey bi di ko doxal nin ko doon doxale wahab lanaa buriyatan tujiin al amala saaliha yaa xadim mu teg ci ne nekk set yoo xam ne it nag ñu sell ñu set ñoo xam ne lislaam du leen mën a fenn ngor du leen mën a fenn ndax am na ci loo xam ne nag ci liggéey ak taxawaay ku ngor wala diina jam doo ko a def moo tax mu ne huriyatan tayyibatan sët yoo xam yu set ci bi du jam ngor du leen jam ñoo xam ne tujaddidu liñ fi fekkan lépp danañu ko yeesal ci aar ko ba du wàññiku waaye yàqu-yàqu du ca tàbbi ndax bañ dayoo ba toll nam toll wan tey yakku yàqu am ci bi man na baña yakku yi it te waye mune nañ ko ar nak kon ba du yàqu du wàññi waaye duñ yam ca loolu nag du jaddi bi duñ ci yam waye dañ cey koy boole teg léegi du nañu def ijtihaad ijtihaad nak ulama wa usul xam nañ ko moo di la nga fa boo ko aaree ba noppi doo ci yem waaye da ngay seet nag la jamono laaj ci lus ca war a dolli wala lus ca war a dolli ci lu koy ak a rafetal nga dolli ca loola kon muy loolee la def rek ay sët yoo xam ne duñ yem rek ca loola waaye lépp lu jamono laaj ci luñ war a dolli ci liggéey bi dañ ko ciy dolli yooyu nag muy ñaan ko Xaadimu Rasuul ñaanan yàlla dafa dogal nag sëriñ Cheikh nii la maamam waxan mu def ko toogul naan na ma ñaan di fekk fii wënul gannaaw ñaan gi ne na dab dafa jug gàttalu ko ni mu ko gàttandoo nag yaakaar naa ne mooy li ëpp solo ci bis di gàttandoo ndax moom li mu bëggal mu aar ko muy ndono li mu aar ko gannaawam ak liggéey bi mu bëggal ñu continuer ko gannaawam la moo di alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem lislaam loola la waxat ne képp ku am ab cër ci ndono li ma fi a donn ci loolu nga koy wute nit ñi ma def wal xadiis yi yasbutu bi fiddati mawruusi nee na ay koppar kenn du ma ko donne sama ndono ku ca bëgg am ab cër ci liggéeyal alquran ak sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak jàngal nit ñi diine ba xam li war a xam yar leen bañ mel ni war a mel sax ci ak jub ak a jubal koo nekk ak koo nekkal Serigne Touba nee na lii mooy sama ndono ndono lii nag. la doon ñaan yàlla may ko ay sët yoo xam ne danañu ko sàmm sëñ Cheikh nag jëf ju rëy ji mu def maanaam mooy la jiitu ji di maamam waxal ne moo jiitu ji li ñuy sàmme noonu moo jiitu ji li ñuy sàmme noonu léegi rek. jox nañ ma benn këyit ci li mu daara ji juróom-ñeent fukki ndaw yoo xam ne ñooy jàng ci daara ji te moo leen yoral seen añ ak reer ak ndékki ku ci wéré gi moo lay faj te amu ci lenn luy bàyyi ko ci seen i jëm si ci moom moo leen jël en charge ci lépp yaakaar naa loolu nag bi xidmatil kitaabi wal hadis yasbutu daa bi fidat mawrusi kon moom ma nga jàll la ko maamam bàyyal tey wax ne ku ko bëgg a doon gannaawam ci ay sëddam ca loola ngay nekk loolu nag moo tax ñu di ko ci ndokkeel waaye di ci ndokkeel nag mboolem ku mu bokkal Serigne Touba ndax ndam la loo xam ne njabootu Serigne bi yëpp ñoo ko bokk damay faral di wax ne kat lu bëree bëri loo xam ne riir na wut ci liggéeyu mag ñi bëgg koo ruub amul dara dara dara lu ko mën a gàllankoor lu dul lii moom ngeen di dégg Nigéria gii mu jege di ko dégg Niger raam na ba ak si Niger moo ñëwoon ba ak si Mali bare bi góor yàlla yi fa nekk lépp liggéey islam nga xam ne islam accès fii ci nun tàmbali ci neuvième siècle góor yàlla ya nga xam ne ñoo tatagal islam ci Tombouctou ak Guinée ca Mali muy les Almoravides ñoo ñaar seen papa yooyu nga xam ne monument historique la monument historique ak seen kàgg yooyee moom la ñuy tuddee mag te nag mboolem noonu di def lu bon loolu ci Afrique ñañ koy def ci ñoom nga xam ne la ñuy def moo leen naqari ñooñu ñëpp tey Sénégal Sénégal te dara nag aarut Sénégal lu may njàngaleem mag yi ak liggéeyu mag yi biñ fi bàyyi kon nag stabilité bi ñu am ba Sénégal mooy seul pays de boo xam ne coup d'état mus fi am amul benn bu am exception Sénégal malgré confrérie yaa ngi muy tarixa yi islam yi mais benn tampaloo waxuma di rayante lakkante ay jàkk waaye xuloo sax ba see ko dégg mu jik ci diggante genn këru diine loolu nag liggéeyu mag ñi muy loo xam ne moo may nitu diine yi mën a am jàmm ak sutura ak dal pour liggéeyal islam nañ ko bëggee moo may waa adduna mën a gouverner nañ ko bëggee waaye képp koo xam ne da ngay lakk jàkk ya di taal kër yi waxtu woo tëddee sa fit du dal boo duggee ci biir jàkka di jaamu yàlla du sa ci dudal même boo nekkee ci barab bu mel ni bii ñu woote ñu islam sa ci dudal réew mu fitna nekk jaamu yàlla mënatu faa am am te nag ñi nga xam ne ñoo andi fitna yooyu kat nañu xam ne liste yi nga xam ne réew yi ñu classé mu nekk seen cible nekk seen objectif Sénégal te amul dara nag lu ko mën a saafara lu doy bii suñu Cheikh Bara dëgg la ndax nag ñi nga xam ne ñëpp tey ñoo ñëw la jël kër ya ñu bokkan cosaanoo fa lu ko waral moy bañ tolloo ci jang bañ tongol ci jang fa ñu cosaanoo lañ bëgg ci am jang dañ ko fa am ñu kenn jéggaani ko bo jéggaanee am jang jéggaani ab yar bo dem ci andi wa ko melokal waaye nag képp koo xam ne def nga nii suñu Cheikh Bara def képp ko ànd ak yow ngir jëmmi sa Touba bu waxtu jàng jotee muy sa taalibe bu ànd ak yow benn bu nekk bu jox waxtu jàng alxuraan jotee bu yëkkatee doomam jox la nga mën koo dugal ci daara joo xam ne danañ ko jàngal alxuraan ba mokkal jàngal ko xam-xamu diina ba mu xamee farataam ak sunna yar ko ci ak taalibe muy tànge xasiida di ko yëkkati di teewee jataay yu mel nii di màggali Touba di màggali Mbacke Kajoor di def lépp kooka buñ noppee ci moom dana tul ba kenn duutu ko mën a tee fëkk bi bu mag moo nekk ci kaw ndax yi ngeen dégg ci fan yii kenn mos ko woon a dégg yéen ci fan yii doy na waar lool te lu mat a tiital dem ba koo xam ne dañuy wax ne ci ñeent fukki góor yàlla yi njëkk a jaayante ak Sëriñ Tuubaa mën nañu wax ne sax ca juróom benn yu njëkk yi la bokk ñu dem ba ab sëtam taxaw di wax ne li mu rëcc ci biir adduna mooy benn yoon boo xam mooy bu mu yëgee ne mos mas daa jàng muqaddamatul xidma ba mu jeex muqaddamatul xidma fii ala nabi rahma nga xam ne liggéey bi Serigne Touba liggéey rasulullah ba am lépp mu am ko ci liggéey boo xam ne yàllaa ko digle inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu liggéey muqaddamatul xidma fii salaati ala nabi rahma nga xam ne lu mu am ca loolu ko amee téere boobu di ndigalul yàlla bokk ci ñooñu taxaw taxaw am fitu tànk dajal ay mbooloo moo xam ne xeex ak benn suñu benn nga leen tax ca biir dëkkub sëriñ ba ay tribunal ak yooyu ca am aw yoon loola dama ne mbir la yoo xam ne yu mëtt a wayafal la yu mëtt a wayafal la de parce que fitna joo gis mu am ci adduna bi lu ne noonu moo kon nag amul dara luy gànnaay lu ci gis lu may lii siñ ca nañu delluwaat taxawaat bu baax baax sampa ay daara te bañ a yem rek ci jàngale alquran sëñ Tuba fekk na fi daaray alquran fekk na fi daaray xam-xam te teewut mu fekkan fi réew mu lëj ak islam yu yàqu ak pas-pas yu yàqu lim fi fekku tën da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko boo bëggee defar nit ñi jiital ko sa programme mooy tarbiya ndax yonent yàlla yónni yëpp huwa allazi ba'atha fi ummiyyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata doogu ñëw jàngal nit ñi ak yar leen mel ni ñu a mel mooy mission yonente yi yar leen yar mooy élément fondamental jàng mën nga xam li nga war a xam waaye yar moo a tax nga mel li nga war a mel moo tax Sëriñ Tuubaa ci boppam ni mu defar ñëpp ci ñeent ci góor yàlla yooyu fekkan nañu jàng alxuraan ba mokkal ko nekk ay kuréel journaliste yi ñoo anti seen lañ nekkan te am na ci ñaar ñoo xam ne ñoo ko féete ak man ñekkee nag ñoom moom na ko ci ñoom mais lam leen defaree mooy tarbiya kon nag nañu yeesal daag daaray alquran yi waaye nañ ciy bëri di leen tarbiya ci ak taalibe bi dañ leen di nampatal ci taalibe bi nañuy jàng waaye nañuy kuréel di jàngi xasiiday xaadimu rasul da serigne touba kat neena na wan haraba min shihri iblisul mari wa bi qasaidi yahtadi muy ku bëgg jubanti ko tafaru ya tang sama xasaay kon nañu yeesal daari alquran yi nan yeesal daari yi tërbi nan yeesal njàngaleem serigne touba téla a ndaw ci fekk leen bala ñu leen a def ñom alfa njàngaleem Serigne Touba ak yar Serigne Touba ak bëgginam naka noonu it mboolem kër jiw yi fi nekk yëpp maa ngi lancé appel boobu ci ñoom muy ñi bàyyi ko kër maam Alhaji ñi bàyyi ko kër maam Cheikh bu mu Amad Kunta nañu xam ne défi bi ñoo ko bokk siibal bi ñun la kon nag ñun ñëpp dañ maase ci loolu ci njàngaleem mag ñi ak yari lu mag ñi ku bañ ñu fëkk sa ku bañ ñu sa njaboot na dellu ci loolu waaye képp ku mënta garantiral suñu njaboot bu ñu waree toll ci jàng am koo leen mën a dugal ñu mën faa jàng nga yar leen def la nga bëgg ci ñoom mënoo leen a garantir ne kenn du leen fëkk ndax buñ jëggaanee am njàng jëggaanee ab yar jëggaanee aw kon nag comme jotaay bi dafa tax noo ngi ndokkeel Serigne Cheikh di ndokkeel ñu bokkal Serigne Touba ñëpp di bokk di kon di ndokkeel ñu bokkal diine islam ci liggéey bu bii nga xam ne moom la liggéey fii ci Ndiogamay muy jël ndaw ñi di def ñoom alquran karim di def ñoom xam-xam diine ak yaru ak taalibe ba noppi nag boole ca loo xam ne nag moo néew lool nag mooy yanu lépp gàtt lépp teggil ko seeni wéy kon nag yàlla na la saanahu xëy ci darajey sa maam ci nii nga gàttaloo ñaanam bii ba résultat bi nekk bii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa